nag ña ngay ignorer ultimatum bi nga xam ne rek moom la leen Ousmane Sonko joxoon Vox Populi moom àddu jëmale tey ji nag ci réforme constitutionnelle yi nga xam ne rek moom la ñu bëgg a jooyantiwaat nag porte parole bu gouvernement bu Sénégal nag moom ma ngay àddu jëmale nag ci yoon wi ñu ko bëgg a jaarale moo xam référendum lay doon wala ci assemblée nationale lu mu ci mënti doon moom porte parole bu gouvernement bu Sénégal ma ngay xam ne ne askan wi ci seen bopp dañoo topp ci ginnaaw président de la république ak premier ministre am du Ousmane Sonko bu fekkente ni ci référendum la ñu ko war a jaarale du doon jafe-jafe ndax askan askan wi ci seen bopp nag ñoom ñoo bëgg ay changement man nag du jiitu njiitu réew ci xalaatam nag ak xibaar yi nga xam ne moom la war a joxe ndax moom rek moom moo yeyoo di xamle nag ndax lu ni mel dañu koy jaarale ci ab référendum wala dañu koy jaarale ci assemblée nationale moom Dieg Sare nag ma ngay xam ne ni li xew ci assemblée nationale nag président de la république moom dana ci jël ay matukaayam saay bu waxtu wi jotee nag moom moomee yore kàddu gouvernement bu Sénégal ci biir yëglekaay bii di Vox Populi nag ma nga fay ñaaw lu njuuj njaaj yi nga xam ne rek am na ndax nag jàpp na ne bu ñu demee ba mën a gàllankoor jëwriñ du ñu dénk wàllu finance ngir mu amal débat d'orientation budgétaire xam ngeen ne nag loolee musiba gën a koo beneen beneenub yëglekaay des ba tey ci kàddu yu jeeg sa rëy rek jëm ci wàllu assise de la justice ak lu jëm ci tas assemblée nationale ma ngay xam ne ni nag bu fekkente ni waxtaan nañu ba déggoo ci kawi kàddu nag loolee faaw ñu daal di koy appliquer l'observateur xëyee tey ji nag ci coow li nga xam ne rek am na ca building administratif ak lu jëm nag ci contentieux boo xam ne rek ñu ngi ko fay tudd jëm ci juróom-ñetti milliards yéenekaay bi ne Bamba Ndiaye dafa lànk ci téeméeri jii ci samedi ji way taskatu xibaar yi dana ca bokk la war a waxtaanee nag lu jëm ci wàññiteg njëgu dund gi def bi la nga ci téeméeri fan yi nga xam ne rek moom la jiite réew Sénégal crise bi nga xam ne rek am na ci diggante primature ak législative bi loolee lépp dina ci àddu jëmale Sud Quotidien faylu ko ñelu soxol doxali nu jub jubal jubbanti nag ak lépp loo xam ne rek moo soxal orientation yu mag yi nga xam ne rek mën na koo doxal ci nguuram nag président Bassirou Diomaye Faye dina amal ab grand oral niki tey jii nag ginnaaw téeméeri fan yi nga xam ne rek moom la jiite réew Sénégal di doxal njiitu réew mi ci boppam nag war a janoo ak way taskatu xibaar yi juróom benn ci ay représentant yoo xam ne rek ñoo war a teewal taskatu xibaar yi foofee ca palais de la république mu nekk test bu mag boo xam ne rek ñu ngi koy xaar ci diggante taskatu xibaar yi ak kii di njiitu réew mi enquête yëglekaay xëy daal di àddu démocratique sénégalais ak législative yi nga xam ne rek moom la ñuy waajal fi mu toll nii nag Karim Wade nag nee ñu day dellu suwaat ci ndakaaru loolee nag moo waral ba jamono ji nag ña ngay dajale seeni ñooñ ngir mën a defaraat seenu toogaay ngir mën a defaraat seenu toogaay Assane Ba bokk ci parti démocratique sénégalais ne dellu suwaat ak Karim Meïssa Wade fii ci réew Sénégal mën na leen may ñu mën a teg seeni tànk fi ñu ko bëgg a yeggalee ñeneen ñoo xam ne rek jamono ji fës nañu ci xëtu yëglekaay yi niki tey ji bokk na ci famille Faye Sall Walf Quotidien àddu jëmale ci guerre bi nga xam ne rek jamono Sall ak Mansour Faye yéenekaay bi ne ab règlement de compte nag bu ñuy amal ci njabootuk Faye Sall enquête yëglekaay nekk relation bi dox digganteem ak Mansour fay nag kii di Alioune Sall ma ngay sànni Mansour Faye ay bomb laas yëglekaay ne ko joxalantey baat kay jamono ji nag am na ci diggante Mansour Faye ak kii di Alioune Sall Le Quotidien yëglekaay ne ko kaay ma wax la coow la ak ni mu demee Alioune Sall di xam ne ci biir yëglekaay bi ne Mansour Faye war na maa traité ab traître man li ko dalee ci samay maam ba fii ñu toll nii nag amut benn nit boo xam ne rek jëfee na jëfinu traître kon nag loolee bu koy lool na ko dem seeti ci njabootam moom Alioune Sall di ci yokku ne nag Mansour Faye def na lu nekk ngir wuutu Macky Sall ci bopp APR Vox Populi daal di àddu jëmale moom itam ci coow li nga xam ne rek dox na ci diggante Alioune sàll ak kii di Mansour Faye moom mi fi nekkoon maire ab Guédiawaye ma ngay leeral ci biir yëglekaay bi nag ne APR jamono ji nag ñëpp jàpp nañu ne ab projet dynastie Faye Sall la te loolee nag damay nangu ne lu am la ndax lépp jamono ji nag Mansour Faye moo nekk di ci doxal ngir bëgg lu mu ca am waaye maa ngi leen di soññ bu kenn sonnati ci APR ndax lépp lu ca nit di daj rek xamal ne Mansour Faye nga koy liggéeye la ñu bëri ci ñoom nag jamono ji ñu ngay amal ay waxtaan ci suuf ak régime bu yees bi waaye nag jàpp leen ne jamono ji li ñu war a def rek mooy boole suñuy doole ngir mën a amal taxawaay bu am solo ci wàllu politique fii ci réew Sénégal moom Alioune Sall ci biir lekkaay bi ma ngay amal jàngat nag ci téeméeri fan yi nga xam ne rek ci la jomaay fay jiite nguurug Sénégal waaye ma ngay xamal Ousmane Sonko na def attention ndax yoon wi mu jël nag bu ko wàcculee mën naa am surprise ci jomaay fay addu jëmale ak wàllu tàggat yaram coupe du Sénégal tey jii la final bu mag bi nag ci diggante Louga ak Mbour Mbour ca stade Abdoulaye Wade lay doon beneenub final boo xam ne rek réew mi sport àdduna jëmale ci mu jëm ci wàllu euro 2024 yéene kaay bi ne Espagne ak Angleterre ñu ngi ko war a amal dimanche ji lay doon jeexalee kook lu jëm ci wàllu Jeux olympiques yi nga xam ne rek moom la ñu doon amalee ca Paris atum 2024 yéene kaay bi nag ma ngay xam le ne jëwriñ jii di Khady Diène Gaye nag jox na athlète bu nekk nag prime bu toll ci onze millions ci suñu xaalis mbokk yi léegi doon a fës ci yëglekaay jàmm ak jàmm Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3